رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم كم نيك تي ياو داغا بوج كو ام غرمال يالا قلب سليم دغ دو نيك تي ياو سيري مام الفاي داغاي بوج كو ام غرمال يالا تي ديرول نيو نان لا الاج مالك امنا غرمال يالا ndax ba mu sosee gàmmo geeg léegi rek jërutul ñu naan la am na ngërëmal yàlla ñëwal Tiwaawan rek munu munu ma dugg Tiwaawan dix kilomètres cinq kilomètres yàllaa ko fay yàllaa ko gërëm yonent bi alayhi salaatu ko nangul liggéeyam loolu nag sëriñ Basiru li mu gëm ni mbaax fu ne la ne ak lu baax fu ne la nekk ak sëriñ Tuubaa ak Alaaji Malik dañoo demee noo xam ne ci bokk wax naa ko miraaram bokkuñu maaram rek liñ bokkaat moo weesu maaram sëriñ Tuubaa Alaaji yow ñaari yooni maaram nga am ndax maanaam ñetti juróom-ñetti doomi góor la am ak ñetti ñu jigéen juróom-ñetti doomi góor yi ñii lañ Amadou Farimata Cerno samaam Soxna Bousso Sayer Soxna Bousso <clears throat> Amadou Xari Jóob Mam Balay sa Ibrahima Oñang Amadou Soxna Mbay ñi ñooy juróom-ñetti góor yi ak ñetti ñu jigéen ñi Soxna Mbàkke Awa Ñang mu jigéen mooy maam maami Sëñ Haadi rek waaye ki naan Cerno Farimata samaam nag moo am ñetti doom ñaar yu jigéen ak benn bu góor na Thierno Farimata moo demaat kër nijaayam jëla soxna su naan Joosi sekk am ci Mati Joosi ak Xëri Joosi ak Ahmadu Joosi Mati Joosi moomu maam Alpha yi ma moom lañ jox tafsir Demba Bona moo am ci Ousmane Mati ak Basine Mati ak Amadou Mati Mati jël jël maam Fawaat di wele mi bokk ak Alpha yi ma turandoo lépp am ci Seydil Xaaji mi nga xam ni nag moom la Makhtar Penda signalé woon ci askanu tafsir Demba Bona la Makhtar Penda woon. ci askanu tafsir Demba Buna bii nga xam ni la bokk wax leen ki ci feeñ tey nekk di liggéeyal yonent bi nekk ci tarixa bi na ko ñëpp topp na ko ñëpp topp ndax njariñul askan wi ak mbokk gi ci moom la ne mooy askanu tafsir Demba Buna bii ngeen bokk nga xam ni askanu barkeel la kooku mëti mooy maamam El Hadj Malick ndax mëti mooy jur maam Ousmane waaye xëri nag moom lañ jox na Cerno Korko ñan ca aafe mu am ca ngañ xëri ñang yaa nga dégg ñu naan ngañ xëri ma ca tata ngañ xëri ñang moomu nag moo jul moo moo moo moo meññ jigéen ju baax ji muy soxna Safiyatu ñang moom alaaji Mansour ak alaaji Abdou alaaji Abdou Aziz looloo waral alaaji Malick su nekkuloon bàyyi alaaji Abdou tamit di nijaayam ndax mëti Mbàkke xëri Mbàkke ñoo bokk ndey ak bàyyi ak Ahmadou Mbàkke kon euh, Ahmadou Diosi nag ay sitama nga Touba moom daam sëyni bu la am ak Samba Thiam daam sëyni bu moo jur sëñ Mor Penda mii sanc Mbampana Samba Thiam a jur sëñ Mbàkke Saloum mu jur sëñ Modou Fana mu jur sëñ Bakki Mouride waroon naa bokk ndax njabootu sëñ Bass bokk noonu la demee ñooñu ñooy ñooy loolu mooy maaram waaye nag doo weesoo maaram mooy bunna basin ak code basin ak maane basin ndax loolu ñun ñun ni ni ñu xam bokk alaaj Malick ak sëñ Touba daanaka xajul ci gàmm bun waaw bu baax ñu ngi ci ñu ngi bind incha allah bunna basin moo jur tafsir dem ba bunna mu jur maam Ousmane mu jur alaaj Malick bunna basin na ko jur code basin moo jur njaga code ñang njaga koddu ñang moo jur na Cerno ko mu jur ngañ xëri mu jur Safiyatu mu jur Alaaji Abdu Maane Baasin moo jur Seydi Dem Seydi Dem moo jur Aysa ak Sadio ak Yaasin Aysa moo jur Mam Balay sa mu jur Mam Moram Sali mu meññ Serigne Touba meññ Serigne Baara meññ Serigne Xaadima bu meññ kii loolu mooy loolu mooy néegub dorobe bi mooy na Baasin ak Koddu Baasin ak Maane Baasin loolu yoonu maaram nekku ci Baasin Sow mooy seen yaay loolu mooy néegub dorobe bi waaye su dikkaatee nag li gën a jigéen nag mooy sëriñ Serigne Fallou juróom soxna Awa Bousso ki mu bokkal benn ndey mook El Hadj Malick bokk benn baay waaw loolu loolu kenn mosu ko dégg sëñ Fallou waajuram wu jigéen ki mu bokkal benn ndey mook El Hadj Malick bokk benn baay soxna Awa Bousso kan moo ko jur soxna Mati Ñang ak sëñ Bousso bi soxna Mati dafa njëkk kër maam Ousmane am fa ki Seydi Hadj bokkaloon baay muy soxna Fat Si wax nañ ni El Hadj moom la tudde soxna Fat Si mu mag soxna Fatou si moomu dafa teel nelaw bi maam Ousmane nelawé soxna Mati Ñang jóge afi ñew sëñ Bousso be am fa soxna Awa Bousso euh, sëñ Ibrahima Bousso sëñ Afe Bousso lolo waral sëñ Fall doon wax naan sëñ touba sama baay El Hadj Malick sama nijaay kon xaw tuut soxna Awa Bousso sante si di wajuru sëñ Fall salaamu alayka ya ya rasul allah assalamu alayka ya habibi ya nabi allah يا رسول الله